savoir est-ce que aujourd'hui mooy sama laaj bi day ñëwaat rek cette opposition là euh, Alassane mi ngay wax sànq y a des oppositions cette opposition là warul mën a doon benn opposition comme son comme den doon benn comme un comme ni mu ko waxee moom euh, pour euh, combattre peut-être ce qui se ce qui passe au Sénégal li nga wax ni c'est tout à fait vrai mhm. c'est la réalité et constat aussi wane na ko mhm. xam nga président Bougane dafa am fu mu daanelee fu am solo fu pertinent mooy aujourd'hui les Sénégalais doivent se regrouper en un seul homme mais pour faire quoi mais pour défendre la République les valeurs républicaines sànq maa nga wax léegi man laan Sénégalais bu d'accordul tey ci li président Macky Sall dogal tey et je pense que tout bon citoyen du si ànd parce que l'élection wax nga ko léegi Alsaan l'élection c'est un droit appartenant au peuple sénégalais maintenant bu ko régime bi violé nag sa àq la sa sa droit la violé sama droit ko war a bàyyi muy muy muy progresser par rapport à sax li nga wax noonu lu tax mu am pertinence. Mm-hmm. fii bi ñu recalé euh, les recalé quarante neuf ans ah, quarante et quelque. quarante six. mais dañu leen doon xas bi ñu bindee lettre président Macky Sall lu ne dégg nañ ko. Mm-hmm. ay dañu complot ak dañu bëgg a dem gise ak Macky pour ñu reporter li nga xamante ni mooy les élections présidentielles. te ñoom bi ñuy bind lettre la ñu adressé ci lettre bi dafa leer naa ñi waxuñu fa waxu recevoir ñu audience. dañu ne ko ci délai bu gàtt suñu injustice yi ñu conseil constitutionnel teg mën nga ci àddu pour ñu rétablir ñu si suñuy droit parce que dañoo tooñ Macky Sall bàyyi lettre bi mu jàll ba ñu génnee liste définitive mu leen kaay leen parce que am na lu mu doon wut parce que xam na ni en réalité aussi opposition bi ànduñu on n'a pas une opposition réunie au Sénégal noonu la defoon ci dialogue bële ci dialogue bi nga xamante ne moo moo tas yeewi askan wi te yeewi askan wi lu ne benn affaire rek mënoon na régler seen problème ñoom rek yeewi rek mënoon na régler problème mu opposition Sénégal yëpp. Hmm. yeewi askan wi dynamique boobu xoolal ni leen Macky sàll naxee. ni leen naxee ci négligence des fois ci seen intelligence wala tomber même ci seen propre piège wala topp seen ay intérêt crypto personnel. parce que xalifa ba muy dem lu mu wax mën naa bokk rek parce que bokkam la gis gisul nii tey même dynamique unitaire boobu bu ko conservé moom sax mën na bokk. parce que benn article bu ndaw moo ko teree woon a bokk te bu ñu ko xeexoon ci biir hémicycle bi assemblée nationale ñu ànd ak force politique bi ñu yor mënoon na mënoon nañu ko réussir muy l' article 57 alinéa 1 tout sénégalais électeur am ay député yu taxaw assemblée nationale en l'occurrence Guy Marius Sagna ne nañu def amendement par rapport ak article boobu mais dañ leen ci mere ñoom dañ ko ko de te loolu moo doon l' essentiel des combats communs des combats loolu dafa feeñ ba ci mbirum Ousmane Sonko aussi daf ci feeñ man nee naa leen opposition bi amul kenn ku waroon di ku waroon jël dossier am yóbbu ko conseil constitutionnel tant que caisse de dépôt joxul attestation Ousmane Sonko parce que décision de justice moo génn santaane loolu. kon loolu dafa laaj ay combat commun yoo xam dañ cee war a taxaw ñun ñëpp xeex ko parce que àqam ak yelleef li nga xam tribunal moo atte une juridiction bi ne woon Sonko génnee leen ko ci liste yi. juridiction ñëwaat na dugalaat leen ñu dem caisse de dépôt ñu ne duñ ko jox attestation foofu rek opposition bi laajoon na une mobilisation une opposition unie ñu ne élection yii duñ ko amal tant que joxuñu wala duñu déposé suñu ay dossier tant joxuñu ko attestation parce que droit am la loolu nag moo gangréné aujourd'hui l'opposition dans son ensemble du ñu am ay combat kon ku nekk dafa mel ni da ngay yéene sa morom sax mu ñu Macky Sall toroxal ko mm-hmm. parce que c'est la réalité des choses donc ñi nga xamante ni tey jàll nañ les vingt candidats les vingt candidats bi rëkkale yi di yuuxu fii mais déggoo leen ñu ñëw faale leen am na si nag ñenn ñoo xam ñëw nañ accompagner la dynamique. Mm-hmm. ñoom Aly Ngouille Ndiaye. ñoom Aly Ngouille Ndiaye de suite. Mm-hmm. te leneen aussi erreur yi nga xam léeg-léeg opposition bi daf koy def mooy da ngay gis koo xamante ni dafay nekk ci régime bi lekk bu suur naan ba màndi njuuxum yeneen mu dugg ci lu ne mu dugg ci mais day ku ñëwaat mel ne sax ku incarné opposition bi. c'est ça. maanaam ligne de conduite yu baree baree bare ci ndogalam lañ koy lañ koy defee xam nga yooyu tam aussi c'est des erreurs monumentales on ne peut pas concevoir des nga xamante ni ils sont là depuis très longtemps dans le seul but d'anéantir un système politique bu nga xamante ni tey am na ñoo xam ñu ngi ci biir opposition bi li ñuy dund ñoom ñii boo ko gëstoo origine bi ñoom ñoo ñoo leen ko teg ñoom ñoo leen ko teg te tey ñoom ñoo dem ba gisatuñ seen bopp ci niñ ko mën a jàngate ñoom ñoo dem ba gisatuñ seen bopp ci régime bi génn ñëw am lu ñuy incarné ci biir opposition bi donc yooyu tamit aussi c'est des c'est des c'est des choses yu nga xamante ne aussi opposition bi war na ko xool man je ne suis pas d'accord des fois ci démarche bi nga xamante opposition bi daf koy entamer. bu ñu bëggee nag les combats de principe. l'opposition dans son dans son ensemble. Mhm. bu ñu bëggee dafa am solo. dafa am solo gis affaire yi nu mu demee on on on dirait ay opposition la ñu am. ne ay opposition a loolu c'est une réalité. da gis kenn entame entame une bonne logique nga gis ñu commencé gën di ko caricaturer. ah oui parce qu'il faut le dire parce que da ngay gis fii collectif des des des candidats recalés ou gis fee ne FC 25 bi génn bees. gisaat ca geneen wet ga F24. alors que boo xoolee gisaat ci wet gi te mais. loolu aussi combat yi benn la wax a nekk normalement. foofu rek laay waxee alors que tous les chemins mènent Rome. mais foofu rek laay waxee. bii moom bu ñu ci àndul combat bii. bii. dafa war a mobiliser toute l'opposition si combat bii et puis li ci gën a garaaw maa ngi koy dégg ci intervention bi ñu naan dafa mel ni am ñu bëgg a euh, benn pàcc ci opposition bi xëy na euh, euh, bëgg a bëgg a porteloo peut-être report yi benn pàcc ci opposition bi encore beneen pàcc bi bëgg a riposter. wala beneen pàcc bi gisee neneen lu nga xamante ni mooy situation ñu nee nañ ñoom report bi du Macky Sall parce que ñeneen ñi ñoom it ça finalement bi c'est ñoom également dañuy dugal yenn opposition bi c'est-à-dire que bu ñu dee wax ne ñoom demandé wuñu ko mhm. prôné ko ki ko demandé mooy le PDS ak yeneen i parti yoo xamante ne ñoom ñoo ko demandé mhm. xam nga bu ñu waxee loolu déjà ñu ngi leen di jaxase ñoom ci seen biir alors que aujourd'hui le report ni ñu la koy argumenté lee cest à que man l'autre jour j'ai lu une interview du ministre euh, Ismaïla Madior Fall professeur mais ni mu ko doon argumenté PDS sax mënuñu ko argumenté noonu maanaam ñoom ni mu ni ñu leeree ak li mu la koy nettalee ak ni mu lay waxee lan moo tax ñu yegg foofu dañ koo maîtriser maîtriser ba yow da nga naan mais ñoom élément yi ñu am ñi nga xam ne ñoom ñoo demander la report sax am nañu ko parce que tellement que ne report bi aujourd'hui seetlul ñoom ñoo ciy gën wax parce que xam nga loo ci mënti wax le président Ablaye Wade c'est un démocrate ah c'est quelqu'un boo xamante ne tout à l'heure quand je disais que ne c'est un c'est un homme d'État mm. et au vrai sens du terme mooy il recule au moment où il doit reculer mais xam nga forcing bi kii di ko def nii nga mooy wane manqué na benn gentleman agreement boo xam ne mu ngi ci moom loolu rek moo lay wane même ñoom ci boppam man jàpp ma ne ils sont très à l'aise aujourd'hui ci situation bi nga xam ne Sénégal mi ngi koy dund. parce que ñoo xamante ne dañoo mës a nangu quand même le droit à la manifestation Abdoulaye Wade président dem na ba ne ku am lu la metti jëlal morso bu xonk nga takk ko pour nga wane sa mettit boo gisee ne yow si. sa demande. mais yow la ñu porté loo la responsabilité. yow la ñu porté loo la ci yow ci loolu la commencé aujourd'hui euh, que tout le monde se lève que je bon tout le monde entre guillemets parce que aujourd'hui association euh, yi nga xam ne ñoom ñoo ngu ci wàllu njàng mi syndicat yi ñu ngi ñu ngi jóg yeneen secteur d'activité yi nga xamante ne moom mooy. presse bi tey ñu retirer définitivement une licence de télévision ci loolu la jóge parce que loolu yëpp mi ngi jóge ci demander à ce que na bokk le président Macky Sall sànni leen la patate chaude ba aujourd'hui ñoom ñu mel ne ku garde la responsabilité du report mais ils le disent mais man je sais pertinemment que ne ils sont gênés autour de cette situation parce que gis nga Mouhamed balaa ngaa xam ne euh, parce que xam nañ PDS parce que xam nañ ne ils peuvent être la cible ah, aujourd'hui ah, waaw ci ñi nga xamante ne ñoom mën nañu mën ah. nañu leen a attaquer moom moo tax mais xam nga gis nga cest euh, à que aujourd'hui personne ne peut porter di agressé ah. ah a lijjanti nag ci bàyyi xel bu baax a baax ak mbiri nu mu demee jaxasoo surtout dégg nga Alassane ñooñu la ñu war a lijjanti taskatu xabaar baleen taskatu xabaar ñu def seen liggéey ah? am dire vous ne pouvez pas nous faire kon nag bàyyi leen taskatu xabaar ñu def seen liggéey parce que man jàpp naa ne wax fi nekk mais gis nga on une presse responsable Mouhamed parce que fii nit ñu quand nekkuñu fi du ñu ay militant hmm. comprendre nga ba nekk waaw kay du ñu ay maanaam ay taskatu xabaar lañu ku nekk dinga am bëgg-bëgg sax mais di nga def tout ba bëgg-bëgg boobu à un moment doo ca wane émotion boo xamante ne dina tax yow ku nekk du la mën a yedd donc nañ bàyyi journaliste yi ñu mën a def seen liggéey normalement mmh. am na loo xam ne nag li ñu naan ku gis nen ne ni nen nena ngi ku ci am li nga xam ne moom la la yoon taskatu sa métier may pour nga dénoncer ko mais moom la journaliste def mais loolu bu mu tax ñu jàpp journaliste yi góor yeeg yu jigéen ñi ku nekk ñu ñun de nous sommes fiers la manière dont on pratique ce métier là mmh. je regarde tout le monde droit dans les yeux et ma wax ko. on mm. est fier maintenant nag bu leen naqaree ñu dem jaay paañ. du ñu tere ñun ñu ñu war a def dinañ ko def mu neex leen mu naqar leen. dama ne ah, paañ ñaareel ah? te day jar. Ah, yow <laughs> alors mi ngoog euh, ñu jeexalee waxtaan bi très rapidement Serigne wax ci euh, soupçon de corruption contre le conseil constitutionnel euh, léegi nag laaj bi mooy fan la commission d' enquête parlementaire bi toll. <laughs> xanaa xanaa xanaa loolu daañu ci dem jusqu'au bout est ce que Abdou Mbow ak son équipe am nañu les moyens de leur mission. accusation yooyu ndax dina dina àgg ca njambaxtal la. waaw mais man dama ko gëmul parce que man dama tënku ci communiqué bi l'UMS génne woon rek falaa tënku. Mhm. parce que ki communiqué bi dañu évoqué. parce que fàttewuñu commission bi de. nañ wax fu mu toll. fu mu toll. fu war nañu koo wax nag. loolu am solo comme si lañ jafandiku ba reporté <laughs> élection yi. dina war nañoo wax nag te ñun tam ñu ngi leen di topp de. Ah, ah. bii moom duñ leen may dara. voilà donc mbir mi man ba mu jógee ba ma gisee l'UMS génne seen communiqué. évoquer des articles de la constitution mhm. ba mel ne kuy sax xaw a wax indirectement ni lii ngay di def du mujj fenn mhm. parce que gé donte ñoom ay information la ñuy jëli mais PDS ñoom dañu leen dégg ñu ni ñoom yor nañu ay preuve te commission d'enquête parlementaire bi ay information lay wuti par rapport à la matière ku am ay preuve nag wax dëgg yàlla soxla woo enquête parlementaire xam nga fi nga war a jublu pour déposer fa say preuve d'autant plus que qui concerne le juge concerné muy Cheikh Ndiaye moom yëkkati na ab dossier dem jébbal plainte plainte ci procureur kon nag bu fekkoon intention bi mooy na mbir mi leer ni ko président Macky Sall waxee. foofu la war a leeree. foofu la war a leere donc bu ñu ubbi woon information judiciaire rek mbir mi arrêté. ñu topp lële du jar sax ñuy dem di reporter ay élection présidentielle. may fale mu reporter non du ko jar xam nga du ko jar. donc mooy li Fatou du wax. lii lépp scénario la boo xam ki ko tëgg du kenn ku dul président Macky kenn ku dul président Macky ci li ñu jafandiku c'est un motif très léger pour pouvoir reporter les élections présidentielles ñaari nit la rek yu jotee mhm. waa PDS ñoo jotee ak conseil constitutionnel accuser un ministre de la république ci loo xamante ni am nañ ay voies yu ñu mën a saisir pour que mbir mi mën a leer mhm. man nag je pense que su fekkoon ni président de la république dans ses intentions logique bi nga xamante ni entamé na ko ba woo ci ay député député bu fekkee c'était la bonne démarche mënoon na saisir les juridictions ne leen enquête ñu ubbi une information judiciaire par rapport à la matière mais li am ba am mooy xam nga lu tax sénégalais yu bëri mënuñu gëm ni lii dina aboutir à à quelque chose mënuñu ko gëm parce que y a des scandales yu ñu évoqué assemblée nationale ba ñu demandé pour ñu ubbi ci enquête parlementaire ba tey kenn waxu ci le président de l'assemblée nationale waxu ci fii lañ accusé présidence ne dañoo jënd ay ngànnaay maître Moussa Diop brandi un document wax ko sénégalais yëpp di ko dégg fii lañ toog ñu ne jënd nañ ay armes quarante cinq milliards Abdou Karim Abdou Karim Sall ana gazel yi hmm. ak leneen ak leneen. <laughs> yooyu fàtte na yooyu res na. xam nga yooyu yëpp tamit mën naa ni furaas daane xëddeem lii. du dara xoolal <laughs> commission d' enquête parlementaire bii. Eh. je pense que ñoom li ñu doon wut. mooy eh. report élection yi buñ ca paree pare nañ ko mën nañ ko sànni ci mbalet bi. mbalet bi la commission bi ma laaj la ko. kenn xamul fu mu toll c'est-à-dire aujourd'hui on parle même plus de cette commission d'enquête parlementaire. Mm. kenn waxatu ci cest dire fàtte nañu ko mooy maanaam euh, commission d'enquête bi yëpp porox ndool la prétexte bu ñu bëggoon pour yegsi ci reporter élection et ce intéresse aujourd'hui personne ne parle plus de commission d'enquête parlementaire barki démb rek ñoom ci seen bopp bi ñuy def conférence de presse. Mm. ñuy jël di wax. ñoom it dañ doon ex loolu laa lay wax ne ñoom c'est-à-dire que argument lay jox mooy la ñu doon bañ. le débat général bi nga xam ne waroon nañu ko may les députés de l'opposition ñu toog wax sénégalais yi gindi leen sax sénégalais bii nga xam